فضيلة الدكتور معك إعلامي فائدة التجانية القادم من مدينة باي ونريد يعني كلمات كلمات تتعلق بزيارتكم إلى السنغال وخصوصا التي تتعلق بمدينة باي وكلنا نعرف علاقة مع الشيخ إبراهيم يس كان الذي كان من مؤسسي هذا هذه الرابطة العالم الإسلامي الذي أنت يعني كالنائب لأمين العام إذا بعد قبل ذلك نريد أن نعطي الكلمة لشيخ تجاني لتقديم يعني سيادتكم شكرا سعادتكم ومرحبا بكم في بلدكم بين أهليكم وإخوتكم وتتشرف السنغال بهذه الزيارة وتقول لكم مرحبا وأهلا وسهلا في القلوب وفي قبل البساط أولا نتعرف على سيادتكم وما هي أهداف هذه الزيارة وما أهميتها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشعر بسعادة غامرة وأنا في بلد السنغال وجئت ممثلا لمعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى من أجل زيارة الاتحاد الإسلامي الإفريقي والالتقاء بسماحة الشيخ محمد الماحي إبراهيم نياس وتوقيع اتفاقية بين رابطة العالم الإسلامي المنظمة الإسلامية العالمية الأولى التي تمثل الشعوب الإسلامية في دول منظمة التعاون الإسلامي وفي دول الأقليات الإسلامية ولا شك أن الهدف من هذه الزيارة هو توقيع اتفاقية مهمة للغاية مع الاتحاد الإسلامي الإفريقي وهي تنبثق من وثيقة مكة المكرمة التي صدرت عن المؤتمر العالمي لرابطة العالم الإسلامي nee na mu ngi am contentement bu baax di ñëw fii ci Sénégal waaye ñëw ngir visite bu ama am solo ndax dafa ñëw ngir signer benn protocole d'accord entre euh, Ligue islamique mondiale bi nga xam ne moom moo nekk sous secrétaire général bu secrétaire général bi nga xam ne ni moom moo ko yebal mu ñëw teewe ko union islamique africaine bi nga xam ne Cheikh Mahamadul Mahi Cheikh Ibrahim ñes moo ko jiite nee na euh, accord yooyu ñuy def nag dafa tëdd ci accord bu mag boo xam ne moom la ñuy wax wasiqatu Makka accord de Makka euh, de la Mecque nga xam ne li ko tax a jóg mooy fexe ba tasaare jàmm ci àddina bi fexe ba stabilité am fexe ba nit ñi dund ci juste milieu fexe ba jokkoo gën a dëgër ci diggante jullit ñi moo xam ci kuréel yi la moo xam ci eh, yenn ñenn ñenn ñi loolu nag moo ko yëkkati mu ñëw te ànd naag mbégte moo xam ne mu yëkkatiku la bi mu agsee fii ci Sénégal war a àgg ci Medina Baye pour gisee xalifa bi nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadou Mahi Cheikh Ibrahima Niass. Eh, la ah, ngeen ne eh, Cheikh al Islam Hadj Ibrahima bi ñuy sos rabita boobu yàlla dafa def moom mu bokk ci membre fondateur yi nga xam ne ñoo ko sos kon bu ñu demee ba nga xam ne waa rabita bi ci boppam gis nañ ne il faut ñu dellusiwaat fii euh, jokkat kóllëre googu dañuy wax marhaban bi ñu ngi dalal rek gan gu tedd gi nga xam ne ñëw na di ñaan mu yegg si ci jàmm incha allah ba suba ñu def protocole d'accord bi nga xam ne sëriñ bi ci boppam moo koy signé pour ñu ànd liggéey ak ñoom